waaw tey tey dañuy def benn atelier de restitution étude étude bi ki ko mënee mi ngi tudd benn cabinet bu ñuy wax Mercure euh, étude bi li ñu ciy jublu moo doon ñu xool nan lañuy mën a gën a gunge entreprise yi notamment PME yi pour ñu gën a mën a accéder au financement bancaire damay wax rek ci tàmbali bi ne euh, li ko lal mooy. depuis ñaari at ñu ànd ceeg BCEAO ànd ceeg ADPMA ànd ceeg GIZ dañu defoon benn concertation ak tous les acteurs de l'écosystème non financier ak financier ñu xool lan mooy jafe-jafe yi tax entreprise yi ñu am financement ci banque yi bañ ko xaymawee ñu gis ne li entreprise am ci crédit ci banque yi mi ngi toll ci 9 10 pour cent bu ñu jëlee moyenne bi am au niveau de l'UEMOA mi ngi toll ci 14 pour cent loolu lu muy firndi mooy Sénégal war na gën a mën a xoolaat ni mu taxawee pour mën a gunge entreprise ñu accès au crédit bancaire naam crédit banque rek du financer entreprise am na am na aussi ay yeneen type de financement yu yu am mais type de financement yooyu innovant yu am ba tey sont à l'étape embryonnaire moo tax ñu ci xool nu ñu koy gën a ñu ci gën a liggéeyee pour développer ko lu mel ni crédit bàyyi boo demee ci réew bu mel ne par exemple Côte d'Ivoire am nañ benn avancée boo xam ne je pense que war nañ ci mën a inspiré pour mën a def lu mel noonu parce que lu mel ne financement des investissements crédit de bail solution la mais mais développé wul Sénégal parce que am na loo xam ne defaguñu ko te war war na gëm naa ne aussi daañu ko def ci tànk ci ci ci ci ci jamono gu gaaw a gaaw a gaaw lu mel ne aussi à facturage nooy def bu financer la trésorerie des entreprises parce que entreprise li muy soxla mooy son fonctionnement nu mu koy financer nu mu soxla mooy son finan son ses investissements nu mu koy financer yooyu yëpp nag étude bi wax na ko. wax na ko moo tax euh, euh, je pense que tey ñu rafetlu ci taxawaayu cabinet boobu ak jàppale bi nga xam ne aussi euh, moom la ADP ma taxawaay bi nga xam ne moom la ADP ma taxaw ci cadrage étude bi ba ñu egsi tey gëm naa ne suñu jógee tey fii ci atelier bi lu ci topp rek mooy plan d'action bi plan d'action bi nag comme ni ngeen sànq ci présentation bi wax na ci fànn gu ne nan la war a taxawee nan la ñu war a taxawee ci wàllu formation parce Euh, secteur contenu local bi waxuma sax banque yi waaye PME yi aussi maîtriser wuñu ko donc daañu de formation ci créneau yi nga xam ne euh, ay opportunité la pour PME yi ñu gën ko xam gën ko maîtriser banques yi ko xam gën ko maîtriser ah ñu xool aussi euh, li nga xam ne mooy leen di gunge ñu am financement ñu ñu ñu taxawee ci mooy maanaam ci wàllu garantie bi ñu ànd ceeg ñi nga xam ne ñoo yore instrument garantie bi ñu xool aussi ñi nga xam ne ñooy accompagner entreprise yi di ko préparer di leen gunge ci seen business plan yi ah, di leen gunge ci seen état financier yooyu yëpp ñu ànd ci maanaam mooy les structures d'appui d'encadrement yi ñu ànd ci ñoom aussi ñu gën leen euh, leen ñu fexe aussi li ñu liggéey nii ñu gën ko feeñal parce que léeg-léeg nga liggéey aussi boo ci communiquer aussi gars yi ñu xam lan moo xew donc daañu def benn plan de communication boo xam ne ànd ceeg ADPME parce que ADPME am na ci expérience soo xoolee. bëri na ay structure d'appui d'encadrement yu fi nekk mais taxawaay bi ci ma euh, am parce que ñëpp ñoo ko rafetlu ci wàllu accompagnement des des entreprises. waa secteur prioritaire yi comme ni ma la ko waxee xam nga ba ñuy ba ñuy ba ñuy liggéey ba ñuy def ba def concertation yi temps yooyu benn référentiel moo fi nekkoon ñu tuddee ko plan Sénégal émergent moom moo identifié woon ay secteurs prioritaires mu ne woon contenu local ci la bokkoon maanaam souveraineté dans le domaine su ma nee alimentaire damay dugal agriculture dugal élevage dugal pêche ñu teg ci dans le domaine du numérique dans le domaine de la santé y compris donc dans le domaine de l'industrie pharmaceutique boo xoolee aussi euh, euh, euh gouvernement bi bees bi ñëw aussi dafa teg ay ay priorité tënk ko nag ci benn référentiel bu ñaan projet projet bi nga xam ne euh, lan mooy vision bi lan mooy lan gis-gis bi mooy ñu fexe ba Sénégal moom boppam moom boppam ci Euh, ci euh, lu ñaan souveraineté économique ci secteur yu bëri nu ñu fexee ba Sénégal nekk réew moo xam ne réew bu juste lay doon gën a juste daal sax lay wax sax lay doon ba pare euh, gouvernance bi gën a jaar yoon dans une Afrique en progrès parce que suñu premier partenaire yi mooy mooy soo xoolee sax ci échanges commerciaux yi c'est c'est l'Afrique waaw donc projet boobu wax na ay priorité bu ngeen xoolee chef de l'État ba mu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, bu muy def déclaration ak à la nation ak aussi bu muy wax ak euh, les les ministres les membres du gouvernement ñëwaat na ci di expliquer les priorités au-delà de la réduction du coût de la vie nee na ñëw na insiste na bu baax a baax ci les domaines de souveraineté domaine de souveraineté économique yooyu nag contenu local ci la bokk contenu ci la la bokk moo tax euh, étude bi nga xam ne cabinet Mercure def na ko dinañu permettre ñun aussi ministère bi nga xam ne ci lañ bokk mooy ministère bi ñuy wax ministère en charge de l' industrie du commerce moom aussi moo yore wàllu PME yi daañu xool ban plan d' action la ñuy teg pour gën a gunge entreprise yi dans le domaine du contenu local pour ñu accéder au financement euh, politique contenu local bi dañ ko séq ak ministère du pétrole et parce que fa la secrétaire technique bi nekk secrétaire national euh, commission nationale du contenu local fa la nekk ñoom ñoo yore lépp loo xam ne ci wàllu formation technique la ci wàllu portage technique du document donc de de la politique euh, du conseil du contenu local ñun ministère en charge des PME li suñu suñu liggéey mooy liggéey secrétaire technique boobu donc en ànd ceeg les structures d'appui d'encadrement notamment ADPME ñu xool nu ñuy gungee entreprise yi ñu gën ma mën accéder au financement